ma dindi vidéo bi daal di koy supprimer xam ne damaa def erreur ñu jël video bi di ko dagg-daggee lu baax li ma wax lépp ñu dindi ko def def fa li ma wax noonu ci feebar bi kese di ko dagg dagge di jéem a jaxase ak di jéem a profité di wut man maa mel noonu ci dëkk bi. man bu ma waxee nit ñi dañ koy jël di ko partager parce que ñu bari ne xaar ma def erreur di ma jéem a jaxase ñii di ma jaxasee waali ñii di ma jaxase fabi waali ñii di waali nii naan waali nangam sama digganteeg waali seeg kenn mënu ci dara yàgg ngeen cee wax 1960 ba tey yéen i nga wax waali na bàyyi aadama waali na bàyyi aadama waali gën maa jàpp loolu moom julu sax ba loolu beneen cadre la mais bu nit waxee lu baax da wax lu baax li mais te ngeen bàyyi lii ay ñaan moom yaayam dafa AVC yaayam dafa AVC fi mu dëkk fa lay saw xoolal fi mu fanaan ci lal bi néegam fa lay sawee fa lay dayee fa lay defee dafa AVC lu bari Adamo lu bari na tooñ na na na damaa bëgg bu waxate ci ci na bàyyi bokk-bokk day ñëw bokk-bokkul mais bokkul dëgg la ñu woy la bokk waaye taxaw wax yow nuyu la nga bokk parce que jul nit nga nga bokk déedéet déedéet barki Seexul Xadim bokk ci faramaare tëgg day mel ni soo ko doo stress waaw waaw parce que xam naa dama gis. billaahi ni la Waly fonke. ndeysaan. xam naa ni Waly bu la fekkee Espagne ni mu lay recevoir. ci kaw de moo lay taxaleeg Waly nelaw. voilà da ko keneen waxoon du ma ko gëm. kon euh, Adamo li mu wax dafa naqari àdduna yëpp. Mhm. àdduna laa la ne internet bi ñëpp Adamo la ñuy blâmer. billaahi foo tourné tey. du nit ku baax. foo tourné du nit ku baax. dégg wax tey tey. muy lu ñaaw. ci kii kii bu doon bu doon gor la xam nga la def day xaru benn yoon teg waru génnaat di waxaat ci àdduna. bon suba dina génn wax naan maa ngi jéggalu. man de baalu ma parce que du moo tax. man de baalu ma parce que du nit en Sogo daal. jërëjëf baalu ko en tout cas Sogo. Mhm. ñu ngi lay siyaar di la di la jaal li ñu bokk kenn ko jaale sa bopp. la walaay ndeysaan suba rek lañu suba sànq joxe nañ. léegi ñëpp ma jaale ñëpp ma message. wallaahi suba la ñuy yemale lépp. waaw suba lañ bugaan nee suba la ñuy yemale lépp. waaw amul juróom-ñetti fan amul juróom-ñaari fan. non non non suba la ñu lépp yàlla suñu borom defal na suba la ñu yemale lépp ci kàttan yàlla. lañ ko denc yoof ba nga fa nekkoon. démb ko denc yoof. <laughs> waaw suba. mu yoof ci kanamu ci kanamu papaam lañ ko denc. ci kanamu papaam Thione Seck. waaw suba. tey tey tey ñu yamale fi dëj bi. lépp ci kër góor gi incha allah. waaw à partir de suba daal amatul togg. pour dëj amatul ah, amatul dara. loolu daal lañuy wax tey sànq waaw amatul dara lépp lañu yemale. ku ñëw dem ñibbi ku ñëw dem ñibbi. waaw ku dem ñibbi amul dajaloo ko boo ko xoolee ni mu tamit xam ne sonalul kenn. dëgg la ne bu ñuy dem dañuy mélange ay famille bañ jeex ñu doog dem waaye kii de gor dëgg la ni mu demee de gor dëgg la barke Serigne Saliou. ndeysaan. Soko di la remercier di la wax dëgg dëgg tegi man ba ma toogee ak Waly dinaa ko wax lan mooy loolu Soko ci yow lan mooy warul ci fay parce que Sokko yàlla ñun loolu la foo xam ne dañuy nekk ak Wally souvent war nañ koy wax ay nitam parce que Wally non Wally xamul xamul ay nitam bu baax xam na lépp ah du xam lu bëri parce que ku ci mel ni Adamo di affiché kaboy di dowal endo merci signalé gauche jàdd droite oto bu koy dawale moom doo jug si accident da ngay du bokk kenn du def kenn nen mais dafa jot dafa mhm. jot ñu wax ko ay nitam parce que kii du nitam parce que jàpp nga ne harmonie itam la mais du du la du la du leen du dal sa kaw mu mu koy vilipande di la ko yéene ba pare di jooy nag ah da na waar daal lu tax deful vidéo waali egsi na léegi waali waali waali na léegi waaw waaw egsi na léegi jërëjëf egsi na léegi xam naa suba incha allah mhm, di ngeen kontaan na daal moom kay kontaan na ko bu baax ne ko maa ngi ànd ak moom. waaw incha sama yaram dafa dee mënu maa def dara. non xam naa xam naa Sokone xam naa xam naa. dañoo loo xam ne ndeysaan dafa yéene. dëgg la yàlla jërëjëf Sokone kontaan